waa Hong Kong ëpp ñu fayda dëgg la wala du dëgg hmm? la xew feneen ak feneen ak feneen muy Chili muy feneen dañu am seen fayda rek dëkku li ñuy dëkku mais fii ngay gis ku ni dafa am lu ko intéressé te fas yéene ceebu jënam du ko du ko ratee mais mënul nekk mais mënul nekk man dafa tolloog gor yu bari ñoo may ñaan na jàpp ni senegal am na lu fi xajatul waaye nag ma dégg Serigne Cheikh Ahmed Tijane yi mu wax ni fu yeb war a tegu ku fa teg teraanga yaa ko yàq ba tax na kon nag nañ ñu féetale du ñu metti waaw ragante gannaaw yeeg kenn mënu fi jële Macky Sall ak mel ni dafa am koy waxal waaye fekk yàlla mu ngi ñëw waxagul kenn dara muy man muy keneen muy keneen bu bàyyi yàlla moom li mu moom rekk waaw lu war a dox dox bi ci des nag nag maa ngi leen di ñaan ñu bàyyi provocation yi maa ngi leen koy ñaan moom Macky Sall mook son ministre de l'intérieur nañu bàyyi provocation yi ba ci gàmmu gi sama cortège mu ngi ñëw ay gendarme arrêté leen ni leen foog ngeen jox ñu autorisation bu leen may ngeen def gyrophare ak sirène te yeek yeeg muus yi sax di def gyrophare ak sirène jaaduwul joxoon naa ko avertisement nag ci otoom lakk mais prochaine fois on verra waaw bu ko defee rek kon am na ñu bari léeg-léeg coow lu bari day tiitaroog day lii ak day laa ñaan leen yàlla mu yem ci tiitaru rekk <coughs> waaw boo ko defee kon nag sunu góor gi shérif bi ah, bi mu ñëwee daaw tey wax Moustapha al sama mbokk mii booba sëriñ Cheikh a ngi dund ca la commencé di ma ko wooye moom Cheikh Mbeng bii bu ñëwee ci Cheikh sànni ko ay nel maktuum waaw ba góor gi ñëw confirmer ko waaw loolu waxuñu ko pour lu ñuy xëccal suñu bopp taalibe rek la doon waaw waaye nag Sëriñ Cheikh moo wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu bëggee simplifier yëf yi waaw waaw dafa waxoon ne ana ibnu imra'atin min qurayshin kanat ta'kulu al-qadid may doom mu ndaw sa am lu woon lu mu dunde bay dunde seel nee na loola la wax ndax simplifier boppam waaye bañ ko bëggee yëpp nag taxaw na ca penc mi ni ana nabiyu la kadib ana ibnu abdil muttalib waaw ñoo xam ni kenn gënu ko kenn ëpp koy dara waaw loolooy tax xam li nga am rek te taxaw ci te di ñaan njaboot ne xam naa ni waxtaan buy bare wax la werante yi dana ci bare waaye kuy waxit nga wax loo xam waaw kuy waxit nga wax loo xam parce aaye bi dem na ba nopp ndax werante bu bari day gudd waxal loo xam ni ku nekkul ci dëgg rekk yàlla àtte waaw ndax Sénégal coow li dafa bari wax ji dafa bari parparloo yi dafa bari ku nekk ak la muy wax waaw nga tax na ku nekk coow li coow li coow li waaw sutura yàlla <laughs> sutura yàlla ba ma def sama congrès sax ñu ne eh ba fa congrès amu fa ay taalibe yu daje rek di fitta soo fa nekk ma ne ah xaaral ba ñu weddi ko waaw xaaral ba ñu weddi ko waaye bu sax ko sam xel dàq foo làqu jële waaw ah. mu mel ni kon nag ngeen jàpp seen daayira sistu Moustarchidine junior ñoom maam Cheikh bi ak Pape Cheikh bi ak moom Babacar ak seen jigéen soxna Fatima ak soxna Umu ak ñi ñu ko bokkal yépp mu mel ni jaaxle jaaxle yi sax dinay am ku ne am lu muy laaj ak lu ko jaaxal waaye fekk dara newu fi ma di leen yëgal ni ku ma mas tooñ rek bal naa la tey waaw waaw waaw ku ma ameel àqit jël naa àq ba jox sunu boroom mu teg ca yërmandeem waaw li ci des nag mooy fii ñu jëm ñu fexe ba bañ def répétition de l'histoire loolu rekk laa ne woon bu ñu ñëwee ñu waxtaan ko bu ko defee sant kilifa yi fi teew commencé ko ci shérif bi wax dëgg yàlla amul jot taalibeem yi nekk Nigéria ñu ngi doon wàcc fekk ji ko Maroc sax pour gàmmook moom mu wax leen ni leen ah Moustapha al Maktoum ma invité te bu ma sañoon ngeen xaar ba ma ba mu pare ci man leneen lu may def ma soog ko xam waaw li dëgg yàlla mag la wa te mag moom du wér ba mu jeex waaye itam mu ngi ko jaral biig mu ngi fi yegg ci presque deux heures du matin waaw wa sunu yeneeni gan yu nga xam ni yi ñu ngi jóge Mali ñu jóge Burkina Faso am na ci mbokk mu waroon a jóge sax Cameroun dafa am empêchement de dernière minute ay yooyu yëpp dinañu jox oustaz Cheikh mu jàng ñi fi daje mu mel ni rekk nu mbokk Mouhamad Mbacke Abdoul Wadoud